ku jullit yi mbokk yi taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xam ngeen ne bés bu mag bi nga xam ne ni Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides daf ko woote woon ngir lan ñu daje jàng alxuraanul karim jàng xasida muy digal loo xam ne nag mbooleem yoon wi jëfe nañu ko bu ñu tuddee xasida yi nag xel yi dañuy dem ci sëriñ Massamba Mbakke sëriñ Moustapha Mbakke yal na yàlla dolli ay leeram te ci barkeem waaye sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ Massamba Mbakke sëriñ Mamor Mbakke xalifa sëriñ Massamba Mbakke jàmbaarul lislaam jooju nga xam ne naka jekk ci liggéeyal lislaam rek lañ ko mës a xamee di noppi ak di jëf noone la jëfee ndigal li nga xam ne xalif général des mourides joxe na ko woote fële ca daaru karim bokk bokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu daje yendoo jàng alxuraanul karim yendoo jàng xasida ni ko sëriñ bi diglee yarndoo bernde di jataay bu am solo am ci barab bu am maanaa ci njiital sëriñ Mamor xalifa sëriñ Massamba Mbàkke bi ñu yendoo jàng ba ngoon nag sëriñ bi yëkkati na ay kàddu jëme ko ci bokki taalibe yi ak jëwriñ jii di sëriñ Mamor Kebe ñu teewlu ànd ak yéen ci jataay bu solo boobu nga xam ne ca Daaru Karim la woon ci bisu xasida yi Sayyidina asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel di ñu seetaan partout dans le monde ñu ngi fii Daaru Karim euh, ci kër Serigne Mame Mor moom Serigne Massamba Mbacké euh, kilifa gi ñu ngi lay siyaar nii ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha Mbacké doon ki nga xamante ni mooy xalifa général ku murid daal di woote journée xasaayit euh, réew mi yëpp daal di daal di wuyu si lan moo waral lool. waaw ñu ngi profité di ci sant Serigne Touba bu baax a baax di sant Cheikh Massamba di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi di ñaan sëñ ma sàmba suñu borom yokk ay leeram di ñaan sëñ Mamor mii nga xam ne moo fi nekk di taxawaayu ma Masamba suñ borom yàggal ko fi lool di rafet lu taxawaayu sëñ Muntaxa bi bu baax a baax a baax di ànd ak moom liggéey bi ci ni mu ko bëggee rek sëñ Mamor nag léppam diine la ndax ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal mu yar ñu ñu juddoo ci kanamam màggee ci kanamam ñu tudde ko lim ñuy digal lépp mooy jaamu yàlla ak liggéey ak fonk sa ñaari waajur ci loolu la nekk ci la teg ay taalibeem kon ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom bàyyi ko fi ba lim bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh Massamba lépp mu liggéey ko ci teggi ba kanam ci barki sëñ Tuubaa bis bii nag bis la boo xamante ni bii sëñ dafa liggéey liggéey bu rëy suñ borom fay ko fay gu rëy loolu rek moo waral lii bis bi dafa nekk bis boo xamante ni bii mboolem kër sëñ Tuubaa yi ak penc sëriñ Tuubaa yi nii rek lañ koy mën a yëge li ne fii moo ne ci jumaay tubaa moo nekk fépp waaye ñi ngi ciy sant yàlla bu baax di sant suñ bunt bii nga xamante ni bii mooy suñ bunt ma sàmba ndax kat taxawaay bi rafet na lool mboolem waa kër gi ñëpp sant nañ ko ñi nga xamante ni bii ay doomam la ñoo ay sëtam ak ñëpp sant nañ ko ñun ñi ay taalibeem it sant nañ ko bu baax a baax a baax rafetlu nañ daal taxawaay bi bu baax a baax a baax bis bi wax dëgg yàlla bisu mbégte la bisu yéene la bisu liggéey la Serigne Touba la kon nañ ci góor góorlu bu baax a baax ba ni ko Serigne bi bëggee rek mu amee ko ni ci barki Serigne Touba. ba ni ko doon kàddu gu waa gën a sant sëñ Tuubaa ak Seex Masamba rek tey ñaan suñu xalifa bi yàgg fi lool ci suñ kanam ci barke sëñ Tuubaa tey sàkku ci ndimbal ci doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi fi teewit ñu ñaan lañu ko bu baax a baax mu yàgg fi lool ndax suñu sag la sagub diine ji la sagub lislaam la waaw loolu rek la. yonent bi daf ni ñaan mooy nganaayu jullit te ñaan euh, jullit bu ne da ko war di def ci boromam. di tuubal yàlla di ñaan yàlla di yaakaar yàlla moo tax sëriñ bi santaane xasaayid yi nga xam ni lépp ñaan la ak sàbbal yàlla ak julli ci yonante bi ñu teewlu ko jàng ko njàngin wu sell toroxlu ci sunu borom ñaan ci yàlla mu def jàmm ci réew mi def ko ci àddina sépp waxuma la taalibe yëpp قلبي وقلبي بالمدينة